سبر بمزة الجنة سبر بمزة الجنة ساتري رب البرية البدن ساتري رب البرية البدن léegi nag ñu bëggoon waxtaan ci mbirum màggal gi màggal gi li tax maam Borom Tuubaa sàkkane woon ko màggal gi day moom yàlla te ne ci man la ko jëkk jaaral moom la ko jëkk wax ba ma ko ba ma ko waxee itam dafa am sama mag gàtt bu ko jox moom laa ko jox fekk na nag muy ci weer bi ci fan yi ñu toll boo màggal bi daal war naa des ñeenti fan wala juróom bis bi nga xam ne ci la ci la ci la ko fas yéene def ba mu ko defee fekk gàtt ba di aw ma di ko wax kooku ne ko moom de yéene na ndaw jox ko gàtt mu addiyee la mu ne ma ma ko nag waaye aw bëy aw mu ne waaw ndax mën nga ma am xaf am xaaf am xaaf sax la wax ko waaw sax laa dinaa ko mu ne ma demal toppatoo ko ndaw li ko woon ma dal ko yóbbu ci yett yi ci séeréer yi ni ko boo demee fexeel ba weccikul ma ko mu dem fekk séeréer bu nekk ci toolam mu ne ko man de dama yoroon bëy bi bëggoon ku ma ko wecc ba man ci am am xaab séeréer bi ni ko seet gàtt bi seet bëy bi ni ko ah kii day sëriñ sëriñ bi moo moo ko moo koy wàcc mu ni ko waaw mu ni ko ah mu def ba seetul bët bi waaw bu seetul bët bi bon du ko wàccikul mu ni ko ah mu day lii la bëgg mu tal koy wax ni ko baax na tal koy joxoñam xaar moo xam ne da ko yeefee ci ci ci mbayeg bi ko seet kee de boo ko tee boo bu la yóbboo mën ko yóbbu mu dal koy fot indi indi ko magal di ànd ak moom ndaw la dem si sëñ bi ni ko la nga ma doon wécciku loolu day wécciku naa ko am xaar mu ne ma bon nag téye ko dafa am lu ma la si bëgg a dugal ba ma jekkee ba defe naa bisub talaata la àlla baal comme ça juma gaaw ba di daal di bisub bisub mu ne ma mu woo ma ni ma ngaa tuboobee bisub tey bii day gis boo xam ni bii yàlla defal na ma ci loo xam ne lu ma am ci ngeneel ak lu baax ci la tàmbali ko tudd doomu ko te loolu yéen itam ca ngeen li ngeen am ci bis bi ngeen ko amee bis bi mooy seen bis yi nga xam ne jiituñu ko yëpp moom ay ay ay ay ay code ci Tabaski ci Tamxarit yooyu yëpp gis la boo xam ne fële na ko fekk waaye bii gis bi moom mooy suñu gis mooy mooy sama gis seen gis kon nag maa bëgg ma loolu ma ci defal ma sant ko sant sant ko ko gàtt boobu nag na nga dem attendre ko boo ko dendee te waxtu woo ko yënde mu taxaw sama jëma taxaw di ko rende ma ma def ko noonu dendee ba am am am ñu moo ko jox loo ñu ma nga ko def ñaari xaaj nga def ko diw nga def ko danaa leen def luñ ko boole luñ ko boole ba defar ko ba mbooloo mën cee jot moom màggal gi daal noonu la demee noonu ma la ko waxee